jafe-jafe yi gën a mag médecin yu centre de prise en charge yu intégré des addictions de Dakar di CEPIAT di jànkonteel mooy rekk xam xeetu drogue yu bees yi nga xam ne dañoo tuuru ci Sénégal. parce que bala ngay xeex ak dara il faut nga xam lan la. am na ñuy wax couche fii actuellement am na ñuy wax sunus am na ñuy wax euh, volet am na ñuy wax kii mais pour ñu jéem ko identifier loolu mooy problème bi. ñàkk xam xeetu drogue yooyee bokk na ci lii di jafel pajum yenn way tawati. CEPIAT weer bu jot dina dalal lu tolloog juróom fukki doomu aadama yuy jëfandikoo drogue. te boo xoolee bi ñu commencé léegi ñu ngi toll ci dépassé nañu ñetti junni patients yu nga xam ni gis nañ leen ci centre bi. am na ñoo nga xam ne gisatuñ leen ñëwatuñu hmm? parce que tout simplement wér nañu. paj mi léegi si yi les bureaux conteneurs lañ koy defee ab diir a ngi nii médecin yi wan gannaaw seen bâtiment biñ leen tabaxaloon ndax bërëb bi dafa dem ba wóoratul. donc war nañu tabaxaat beneen secteur bu nga xam ne Afrique sow jant benn centre de prise en charge intégré des addictions bi dong la am. sàmba Meng lu tollook juróom-ñeenti at ngi nii muy faju fii si Sepiade bëgg bàyyi drogue drogue nga xam ne dafa yàq àddinaam. sama avenir yëpp dina yàq sa avenir yàq sa relation ak say famille yàq sa liggéey erreur bi boo ko jëlee boo ko bëggee baax dangay ñëw fii drogue bu bari bi ñuy jàpp fii si réewu Sénégal te jafeel na paj mi fii si CEPIAD seetloo jamono yi ñu toll li ñu jàpp ci ay tonne drogue ci Sénégal loolu moo lay wonal moo lay wan ne euh, drogue bi euh, bari na fi Sénégal nag pays de transit la am na ci drogue bi loo xam ne day jaar jàll waaye lu ci bari tamit dafay des pour ñi nga xam ne ñoom ñoo koy jëfandikoo fi ñii di liggéey CEPIAT yëf yaa ngi leen di tàmbali di ëpp doole bu weesoo sax jafe-jafe yi ñu am ci seen wàllu bâtiment amuñu yitt personnel bu doy li santé bi di rëy rëy ñetti médecin kott la am wàllu garab yi it balaa ñu see jot lu nekk la ñuy daj